Eh, li am solo rek wax naa nga sama njaal benn wax alhamdulilah na ngeen fexe nag ba lépp luy dajale Cambérène nag na fi nekk football bi ak lu ko laal toujours la ñuy bàyyi xel fi ñu ne fana Cambérène du dëkk bu ñu foraat dafa am ci baas yu wóor yu mu taxaw Cambérène bu ngeen xoolee fa mu toll ak fa mu jëm ak li yëf yi daw du neen kon nag app ba dafa jot lu mu manti doon na nekk rek ci unité nangamante fa tabaarakallaahu nun nag luñ ci war a taxawee gaa yaa ngi nii man suma mooy suma wax bu jëkk na am un comité ku ci ne yow la nga man ak ña ca man nga def ko man foofu ci lay ci laay waxe nag dund rek sëriñ bi nii nii déedéet déedéet déedéet am na loo xamante ni fa tabaarakallaa dañu waroog dëkk bi waroog nàng mi parce que ñooy yéen yéenay ñun le problème vraiment kon lépp lu nuy def nag am na loo xamante ni ah, loo yëgul yëgoo ko <laughs> loo yëgul yëgoo ko loo xamul xamoo ko li ñu war a taxaw nu ngi ciy taxaw na lu leer la mais gis ngeen il faut loon ñi bàyyi xel ci suñu dëkk bii gis nga ku ne am na foo xool mu ne ci sa xool waaye ñun na lu xam ne ñun ñëpp nag benn famille rek la ñuy constituer nay daw fraternité bi daal lañu bëgg ñun nay saxu nay samp euh, dégg naa defe naa Baye Mandione wax na ko sànq nga loo gis ñooñ fay gaare seen loolu ak seeni nangam ak seeni nangam yaakaar naa ni bu doon seen coobare dina dina du demee noonu mais dama ragal ni dajale njaboot gi ba ñu mën a gérer loolu ku ci nekk am ci loo am ñu doom gérer sunu lële moo ëpp solo pour le moment ci dëkk bi nii te loolu Cambérène doyal na ci loolu xewwi na defatul yooyu parce que tendance bi fi am si war a wax nag assemblée générale baa ngi nii alu ñuy coow gis nga dafa am jàngoro ju fi nekk mooy fu ay nit di liggéeyee ñetti nit a ngi ca mbedd damay taxaw exact ñooñu ñuy wax affaire camion yi gis ngeen fii ngeen di romb 38 milliards moo fi jaar bi ma wooyee kilifa di leen kaay leen kambe leen amee matériel ñu ngi ko doon gaare presque suma station bay libaas boo naa ca kilifa gu mag boobu nangam mais ay nit ñoo leen découragé yow amoon saret gars yi seeni seen i nangam gars yi ñàkk ful la ñu leen woye nii nii ne fii xool leen fii ba keroog un ak lan ku fi ku fi gagné benn match seet leen rek li ma leen wax bi ma yëkkatee affaire ci kan am na ñoo dañu xoolante xeex waroon na fa bëgg a am. dañu ne fen lii am na nañu bàyyi intoxication ak rumeur c'est mauvais bari na lu ndaareel suñu dëkk tardeel ñu yooyu la nag te nag itam ñoo lànk fi mu toll daal luy dajale nit ñi te ñu jëm le développement l'émergence moo nu ëppal solo fii ñu toll léegi ak tas ñoo bañ ku mën la tas fa nga jóge bul tas fii. tas bi yéen bu ngeen xoolee at yi weesu li li camb retard bi Cambérène am dafa bari te bu ngeen xoolee xool Cambérène actuellement xale yi taxaw nañ taxawaay bu am solo. dynamique bi nag xale yi toll bu ko kenn yàq dénk ay nit suñu dëkk c'est important dinaa ko répété di ko wax parce que ci kanam tuuti li ñuy wax dañ dañ ko am fu ñu ko teg nag dénkaaniwuñ suñu bopp waaye fi lañu dëkk waay bon li ci des daal euh, njaboot gi li ñu ci war a taxaw ak keneen mais seet leen y a des personnes ressources ku ci ne waaye nga dugal ci sa loxo loolu rek la du leneen man daal suma kër mu gën ma nelawuma du ma nangam kenn laa ci yéen su ma doon tëj du ma ñëw fii du ñëw fii gis nga am na loo xamante ni nit am nañ ko na na Cambérène daal am na loo na fi jóg rek na fi jóg doo def doo fa nangam nangam mais yaa koy yàq baaxul te yéen a ci dynamique boo xamante barki salaatul faate bu ngeen continuer di ngeen yàlla jàppale li fi jógee yëpp parce que ñi ma fi gis ñëpp ndeysaan ku ci ne dëkk bi bëgg nga dëkk bi parce que lu tax taxawaay boo kii ci dëkk bi yaa ngi leen gis ñu tax bu leen ci kenn génne gis nga li ñu li ñu dellool ginnaaw yëpp mooy yi fi weex mooy isaa bi tey yàlla dénk leen lële man du dara maa ngi sama kër yi nag bëgg critiquer koo xamante mu ngi fi toog tey waxtu wi mi ngi doo toog fii yow yaa ngi sa kër di nelaw kon fa tabaarakallaa lu ngeen di yëkkati rek na ci li gën a dajale dëkk bi nekk ci parce que ñun nag diine leen wax mënunoo wax diine di tas nit ñi fii ethnie tariixa ak lu ko niru fa tabaarakallaahu du tas dëkk bii déedéet ñi fi nekk ñépp fu waay fu mu mën a jóge ci tarixa bu mën a bokk ak fu mu mën a nangam na ko wóor ne mu ngi ci ay biiri mbokkam fi la dëkk ci doomu dëkk bi la ñenn ci jàngu bi doomu dëkk bi la nun nun suñu dëkk noonu lañ koy def loolu lañ fi suñuy maam bàyyi ci loolu la ñu teg suñu tànk du ñu jël kenn di ko teg kenn ba mu des lenn nag mais mooy fekk dëkk bu day ni Cambérène nga bëgg kaa fooye gratuitement déedéet kooku moom duñ ko nangul kenn kuñ ko xamee jàkkaarloo yow rek foofu rek la day allahuma salli ala sayyidina dégg ngeen